ci bés bi di leen yëgal suñu assemblée générale ordinaire bi ñuy tawal le 20 inshallah à la case des tout petits kër Maam Dabakh ñuy woo sociétaires yëpp ñu bëgg ngeen teew ngeen ñëw xam lan mooy njëriñu crédit mutuel crédit mutuel mi nga xamante ni dafa nekk ak proximité bu baax ak sociétaire am ñu leen di ñaan ngeen ñëw teew ngeen déglu ngeen xam liñ leen leen di jëriñ ci gox bi samedi incha allah à partir de 10 h bu ko kenn manqué ma ngi invité nak sama suñu femmes yi nga xamanteni ni présidente Calabas yep les femmes de développement yep ngeen ñew tew ci bëss bi caisse ñaari tali caisse Colobane caisse Point E ñep ñëpp ñu ngi leen di wax ngeen teel a ñëw ngeen ñew tew ci bëss bi du yomb nak amna ay surprise incha les retardataires on de la caisse euh, du Crédit Mutuel de SAM, du Point E et de Nyaritali. Par ma voix, en tant que e PCA de la Caisse, nous vous invitons tous, société, parce que c'est à vous qu'appartient la Caisse. Et nous voulons que cette fois-ci, nous puissions vous entendre à travers vos préoccupations, à travers vos doléances et pour vous faire mieux savoir encore ce que c'est le crédit mutuel, à travers ses engagements envers vous, les de, de, de proximité. Donc, euh, nous allons tenir notre assemblée générale, assemblée générale ordinaire ce samedi 20 à la, à la case des tout-petits Mamdabar. Nous vous invitons, soyons nombreux.